yéen a ngi sen sen seen Rewmi 24 TV. alaikum. Dama jot ay appel ak ay menaces yu jóge ci mbooloo jot ay information tamit yu ma wax ne dafa am ben sëriñ bo xam dafa dajale quelques personnes na leen fu ngeen ko fek na ngeen ko liquider. pour agresser sama dal sama kaw moo xam ñu jël sama bakkan wala luñ ma mën a def ma di leen wax lenn maa ngi lancé appel état Sénégal ak suñu force de sécurité waaye ma di leen leeral benn mbir tamit man ci sama jëmmi bopp yor naa fetal boo xam ne un million laa ko jënde defarlu naa autorisation boo xam ne cent mille laa ci fere fetal gi biñ ma koy jaay ànd naa bal képp kuy ñëw di ma attaqué si du ma raykatu nit nag waaye tànk yi la yàlla bindal nga judduwaale ko tànk yooyu incha arabi bu boobaa dootoo ko yóbbaale xaw ma tànk yooyu doxeti waaye du yi la yàlla sàkkal may wax ne nag li tax coow lii mooy coowul seex Omar Diagne li ma di leen xamal ne dawuma ci virgule di ngeen ko yàbbi di ngeen ko bàyyi Cheikh Omar Diagne deful kenn dara waxul kenn dara li muy wax xam-xam la am na ci plein droit ku koy weddi nga weddi ko ci xam-xam réew mi moomoo leen ko dañ koo bokk ak yéen may wax am ñu taxaw ku mel ni Gana Messere naan Mbaam Diagne yow da ngaa gën Cheikh Omar Diagne ba naan ko Mbaam Diagne yow yaay kan tuye kii ku sa intérêt menacé wu rek nga jóg di mbépp mbéppi di wax il faut très attention baleen doomi jàmbur ji maa ko wax démb maa ko wax tey bu ngeen ko sexee di ngeen koy yàbbi